saa rooga dem na xolam am fañim fañim fañim fañim tawa caaca fañim fañim fañim fañim tawa caaca jëf yu leer tax na tey ñëpp kontaan sax di la bége ba ñuy xëccoo wurus yow sàll ngaar yaay suñu ngalam gis nañ fi émergence jafe-jafe ci réew mi yaa ko fi jële yoo leen leleleleleleleel yoo aaye gis nañ fi lu ci mel ni jam ñaajo aleen ma autoroute ba Ila Touba tabax fi ay juma ndaanaan nga duñu la fi jële e eh, way maa lay way sàll ngaari lam tooro jaara bëgg sa bopp xam sa bopp yëngu na ëllëg 2024 ah xam nañ ne la la traversée du désert de l'Afrique va s'arrêter en 2024 et que l'autre avenir, notre avenir, l'avenir de l'Afrique, c'est avec le président Macky Sall. La générosité du joxe parce que nit du joxe lu mu amul. la générosité du wax ju bari ju neex la générosité bi ci ëpp mooy nit ku yéwén ci dara jàmm jeune frère samay militant ak samay responsable dañu ma dañuy mobiliser ma ne leen foog kenn mu ñu jaaxle parce que dama bëggoon bu ma taxawee fii tey ma ni fii kenn day delloo njukkal Macky Sall ñun ñëpp lépp am dinañ ko ci def lu ñu xam dinañ ko parce que Macky est une chance pour le Sénégal Macky est un produit de consommation diplomatique africain Macky incarne le Sénégal Abdoulaye coopération. Nous sommes fiers de cheminer avec vous. jàpp naa ni bésu Thiès la Thiès moo woote ngir sargal son excellence le président Macky Sall. du li mu defal Ablaye Dièye wante li mu defal Thiès pendant une décennie. tey su ma doon lim lu fi président Macky Sall def fii si Thiès kenn du fi ndax tey jàpp naa ni ñi mën nañ ko seede jeunesse bi mën na ko seede mais également infrastructure yi mën nañ ko seede ndax ku xool juróomi at yii weesu tey boo ñëwee Thiès xam ne am na xar-xar kanam bu bees si wàllu Promoville gis nañ ni zone yi nga xamante ni ay jafe-jafe accès tey zone yooyu yëpp def fa ay tali te loolu son excellence le président Macky Sall de par ses projets de par sa vision pour un Sénégal émergent changer le visage de Thiès donc nag loolu tey moo tax Thiès delloo ko njukkal wan ko ni président Thiès ànd na ñoom yow Thiès est reconnaissante la ville de Thiès est reconnaissante envers son excellence le président Macky Sall ndaxte jeunesse bi man jeunesse bi laay waxal ndax Thiès a été toujours une ville de tension où la jeunesse a participé nekk jeunesse bañkat nekk jeunesse bu xam seen bopp mais également nekk une jeunesse consciente raison pour laquelle bi ma ñëwee wàcc si langue gi dama ñëw seeti jeunes yi waxtaan ak ñoom baax na bañ loo xamante ni day wax na mais aussi bañ sa njëriñ dañ ko xoolaat moo tax tey jàpp nañu la jeunesse thiessoise ànd na donc son excellence le président Macky Sall si li nga xamante ni ba mu ñëwee ba léegi mu ngi créer ay emploi mais également di développer l'entrepreneuriat des jeunes à travers la DER à travers le FONGIP maa ngi jaar si occasion boobu di nuyu la directrice du FONGIP euh, sunu sœur Thérèse Faye gis nañ ko fi wax ni structure yi nga xamante ni président teg na ko fi jëmale ko jeunesse bi te xam ne tey ku bëgg formation 3FPT mu ngi fi ku bëgg liggéey. tey teg ay pôles yu ñuy wax xëyu ndaw yi et je war nañu xam ni président Macky Sall bàyyi na leen xel la jeunesse tey en tant que directeur général de AIBD Thiès tey aura une académie internationale des métiers de l'aviation civile Thiès sera une si projet yi nga xamante am na ko nee na tey doomu Sénégal duñu génn ci bitim après ñu des si yeneen compagnie internationale yi nee na fii ci CES dina am fi créé académie boo xamante ni ndaw yi fii leen leen formé bu leen formé ay a jariñ ne les jeunes de Sénégal di ngeen am formation mais également di ngeen am liggéey. Sénégal ñëpp am nañ droit wax seen féete dañoo jëm deux mille vingt quatre du ay jaaxaan. ku nekk nag am nga droit choisir sa candidat man nag. sama candidat mooy son excellence le président de la république ak képp koo xamante ni Ablaye Dieye nga àndal te dinañ jóg ndaxte war na fee ñëw le eh, def fi conseil des ministres lii ñu fi tey bu fi Macky Sall pour un accueil